utiliser doomu jàmbur sentiment wu nit ki pour am une belle vie pourquoi pour le voyer moi tout le monde n'a pas la même capacité d'encaisser ce que vous faites moi j'ai la tête dure moo tax duma xaru tey duma xaru ëllëg li ngeen may wax frégeewu ma ñentewu ma lijjantiwu ma leen ndax maa leen gën a yegg maa leen gën a daan kaani maa leen gën a maa leen gën a capable foofu téeméer junni yoon capable leen sax yéen pensez que da ngeen wax ni ma dinaa toog fii di xaru xaruwu ma tey xaruwu ëllëg parce que vous êtes un peuple maudit sénégalais mënul am ndam Sénégal il faut ngeen takk ci suuf ngeen jël seen yàmb ñi bëy wow wow wow comme ay xaj avec ça vous voulez que le pays change le pays n'ira nulle part ce sera de mal en pire dëgg dañ koy wax baa ñu xool nu ñu def bam d'hypocrite d'imbécile vous n'avez même pas honte tu veux ta carrière professionnelle mais va vendre ton cul va travailler Pourquoi tu te déguises dans un mariage pour être truc en plus C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu la lettre de Pala, j'ai pris la défense de Pala parce que xam naa li muy dund. xam naa li muy dund fii dama ni fii kenn dofu fii xam nañ li fi xew mais dañoo mën a maslaa mën a def semblant si xam nañ li fi xew. vous faites chier les gens à la fin vous faites chier les gens liggéeyoo leen xëyoo leen toog leen benn activité du toog ci internet ou seen passe mille francs di fen di duul di sos créer ay groupe de fornication di xas nit ñi di non mais bu vous êtes vous êtes yal nañu yàlla yërëm te yal nañu yàlla yërëm yal nañu yàlla yërëm rek Sénégal gi yal nañu yàlla musal yal nañu yàlla yërëm ndax fa ñu jëm amul ndox man góoma loolu da nga bëgg ay millions demal nga liggéey ba mënta liggéey jëlal sa yaram gi nga dem dem leen jaay ko allez vendre vos culs et arrêtez de d'utiliser des gens et de, de faire n'importe quoi au moins ça personne ne viendra vous dire pourquoi tu as vendu ton cul moi il y a aucune gendarmerie aucun policier personne ne viendra vous dire à part subhana à part Allah il y a personne qui viendra dire pourquoi tu as vendu ton cul au moins vous êtes sincère envers vous-même mais vous vous jouez les hypocrites vous jouez les hypocrites je ne réponds à aucun appel. C'est même pas la peine d'essayer de m'appeler. Je réponds à aucun appel. Je pas aux hypocrites. Moi, j'ai lu la lettre de Parla et je l'ai postée sur ma page. Tout le monde l'a lu. Tout le monde l'a lettre. Vous avez vu ce qu'il a dit dedans Et vous pensez que di nga mën a xas nit ki nekk ak moom di ko torturer pendant 15 ans mu am grandeur ànd ak xelam. il y a ce qu'on appelle des troubles psychologiques le mec il était troublé il était choqué mentalement nekkatul woon dafa dem ba dof ndax lii dof rek moo koy rey le fait de tuer ses enfants il aurait dû se tuer lui-même et laisser ses enfants ça moom je parce que je suis une mère et j'ai un enfant te xam naa li ci ëmb sa doom 9 mois sa kaw lal di ko pousse muy génn xam naa parce que je suis une mère il n'aurait pas dû toucher ses la femme xamuñu sax lu mu nduru gis nga ni mu amee ay góor ñu bon la amee ay góor ñu baax parce que man su ma nekkoon paa la je préfère dem takk si xale ndaw yi moo ma gën a loon foofu mais il l'a pas fait et je suppose parce que su ko defoon du du xalaat ray rey boppam il ne l'a pas fait il a été sincère dans son foyer mais qui vous oblige à vous marier tu veux pas te marier mais reste célibataire qui t'oblige à te marier ba am fa ay doom ba di sànq sa doom quoi qu'on puisse dire lii moom li fi xew moom pas la warut woon ay doomam mais la femme li mu def elle va avoir ça dans conscience toute sa vie nit du ko mën a defal ba du tëdd guddi fàtte ko xam mënta ndax jëf wees na. noo may doom ak koo bëggul ma dinaa la ëmbal bëgguma la may ëmb pour lan bëgguma la may takk may sëy pour lan du ma ko def va te faire foutre laa lay wax mbëggeel sëy ak kala saf. que nga sentir nga koy fóon mu lay fóon yàgg naa leen ko wax bu leen dof dara jouez à quoi? Non, je suis pas, moi j'ai pas le temps. En fait, je suis pas une femme soumise. Maintenant, sans que tu as gâché l'avenir de tes enfants en négligeant ton mari. Et les hommes sont des rancuniers. Un homme est un rancunier. L'homme ne pardonne pas, l'homme n'oublie pas et l'homme se venge. Aujourd'hui, qui a perdu? C'est toi qui as perdu. qui a perdu c'est toi qui a perdu yow yaa ñàkk yaa ñàkk di yaa ñàkk sa taaw ñàkk sa doom bu jigéen ñàkk sa caat bu jigéen yow yaa ñàkk c'est toi qui a perdu Palla n'a rien perdu c'est toi qui a perdu parce que moom lu mu def il va rendre compte à Dieu kenn du nekk famille yàlla moom fa nga koy àtte kenn du fa ne vous parlez de de de culture de valeur Sénégal dañoo am ay valeur ñun moom y a des choses ban valeur ngeen am lu dul sàcc fen mooy yàlla euh, euh, tuumaal nit ki sos njaaloo man di lan ngeen am ban valeur ngeen am fii ban valeur man ban valeur ngeen mën a wan ban ban ban valeur amu fi valeur association de malfaiteurs et d'idiots publics moo fi nekk aucune valeur moi au moins je prends soin de mon mari et mon mari c'est pas le genre à se parce que jiwu ma ko loolu defalu ma ko it loolu réfléchissez un peu êtes là je vois dans les anneaux man sama jëkkër du ma ko jox mu lekk suñu merewee moo xam il n'a qu'à aller se faire foutre c'est digne d'une femme ça c'est digne d'une femme ça moi je ne dis pas que mon mariage est parfait je ne dis pas que mon mari est parfait mon mari dox sama jab sama jëkkër dafay doxaan njaw dafay doxaan te xam naa ko mais c'est pas une raison pour ma defante ak moom je sais comment le freiner je le freine ne ko bébé lii ak lii waru la lii ak lii waru la c'est tout y a pas un homme fidèle y a pas man depuis que je suis née ma mère ma grand-mère l'arrière-grand-mère damay y a aucune maman qui te dira ma fille l'homme est fidèle l'homme est de nature infidèle l'homme est narcissique l'homme est égoïste on le sait mais quand ça va plus on divorce même dans le divorce on n'exclut pas à son mari le fait de voir ses enfants pourquoi pour quelle defante pour quelle raison amul sens sëy yàlla moo ko sàq divorce yàlla moo ko sàq dañuy ànd su neexee bu neexatul ñu bañ ñu bañ a àndati mais man du ma tere sama papa yi dem gis ay doomam c'est c'est pas y a des gens qui n'ont pas la capacité d'encaisser ça yow li nga mën a attan man mënuma ko attan li ma mën a attan yow mënoo ko attan mais xas matin xas midi xas soir yow lii moom dindi ko moom bu ko publier nii nii nii nii nii si vous aviez soutenu moralement monsieur Paye tey du reyu boppam dina fi nekk mais personne ne l'a soutenu tout le monde l'a regardé en pensant qu'il est jaloux mais si ne tourne pas autour de la jalousie yéen na pas que la jalousie des fois il y a des traumatismes et la personne se sent moralement atteinte du coup il ne répond plus de ses activités il fait comme un animal moi je suis une femme hein mais je ne cautionne pas le fait que ce que cette femme elle a fait parce que man dofuma dara daluma parce que la femme dire le contraire, mais pas le Au moins, moi, je sais que Paul ne peut plus se réveiller pour dire que tu as raison parce qu'il est parti. Et la lettre qu'il a écrite, c'est une lettre qui est précise. Il a écrit depuis 2004. li xew ba 2004 ba leen fàttewul dara et je vous rappelle c'est un médecin donc ça veut dire que il est disposé de toutes ses facultés mentales mais il était atteint il était détruit psychologiquement moi je vais pas confiance à quelqu'un va raconter sa vie ah j'ai lu la lettre te li mu wax laa jàpp moo am mais li ma ko condamné même warut a woon rey ay doomam loolu moom ñëpp d'accord nañ ci mais li mu bind moom man leer na ma ni am na ñaata góor laa fi gis ñoo xam ne ñu takk jabar seen jabar du leen du leen toppatoo du ñu lekk du ñu naan du ñu solu dara même pour coucher avec son mari sax il faut que góor ki ñëw bébé s'il te plaît j'ai envie de toi non pas aujourd'hui pendant 40 jours tu ne couches pas avec ton mari au oh quoi Quand tu couches avec ton mari, tu lui demandes de l'argent. Au nom de quoi Quand tu couches avec lui, c'est parce que tu veux un billet d'avion. Au nom de quoi Au nom de quoi Au nom de quoi Au nom de quoi Il faut arrêter. quinze ans le mec, 15 ans comme ça. 15 ans comme ça. dafa mën a muñ sax man mënuma muñ loolu c'est pour ça que j'ai claqué moi le divorce moi je vous ai dit que deux choses La cause de mes divorces, c'est parce que je n'aime pas la violence. Donc quand il y a la violence, je dégage. J'attends pas 15 ans. Le premier mariage que j'ai fait, ça n'a même pas duré 3 ans. Dakar ndeyam ci biti parce que xaw ma ay dóor xaw ma ay saaga deuxième bi sàcc fen ma Dakar ndeyam ci biti troisième bi idem un mois ma Dakar ndeyam ci biti parce que man du ma ànd je n'aime pas. les gens sont là tu t'es marié combien de fois au moins j'ai sauvé mon fils en me dégageant d'une chose qui était négative pour moi. Mais je ne reste pas à profiter du gars, à profiter de lui, sachant que je ne l'aime plus. Je ne l'ai jamais aimé. Maintenant, qui a perdu Qui a perdu Le mariage n'est pas forcé, je vous ai dit. Il n'y a pas une honte à divorcer. Quand ça ne va pas, mais partez. 15 ans, en tant que fois, après, tu viens dire que tu ne l'as pas aimé. Donc, tu faisais quoi avec lui C'est de l'intérêt. Il a écrit intérêt sur intérêt. Auto, 4x4, villa, bar, nini, juste pour que les gens puissent voir que tu as avancé dans ta vie. Prendre, prenez vos responsabilités. Soyez honnête envers vous-même. C'est ça la vérité. Je ne juge ni l'un ni l'autre. Mais je vous dis que, li xew ci sëy yi moom bu ñu ko canaliser wul paale mii commencement la rek li xew ci sëy yi bu ñu ko légaliser wul bu ko organiser wul sëriñ si wax si bu ni nitu diine yu wax si kilifa yi wax si lii moom commencement la commencement la ndax man mu mënuma concevoir nga takk sa jabar ci sut nag tak ak Mouhamed i say ak moom mun naa naan jox ma oto fayal ma sama oto bi cinquante pour cent le apport bi nii nii nii pour lan sëy c'est quelque chose de naturel moi quand je couche avec mon mari j'attends pas que mon mari me le dise ah moi je vous ai dit je saute sur lui parce que je l'aime mon mari Je fais semblant pourquoi je fais semblant au nom de quoi et pourquoi qu'est-ce que je n'ai pas eu man lu ma am lan lan lan la ma mën nit mën a may lu ma am sama bopp du kër ndax am naa kër am na ay kër laay wax du oto ndax am naa ay oto du belle vie parce que dund naa belle vie lan la du or sama jëkkër daf ma fekk may takku or dëkk fu baax yow samay kat ka yow samay se na mu ma dara man xaar ma daray góor il n'a il m'a apporté absolument rien si c'est du respect de la considération de l'émotion et, et, et surtout euh, un apport en en humain maanaam il me prend comme sa sœur te ku ma muñal la ku ma bëgg la loolu mooy sëy mais nekkul matériel nekk ak yow pour nga may ma iPhone 13 sëy yow yow eh sama dof bi ñeen daf may takk waa man moom xam naa damay sëy 3 mois tas parce que man moom 10 millions yema intéressé dootoo leen ko defati góor ñee leen gën a dof gën leen a capable ko fi sëyiti ndax inter dan lay rey kil la lan lay def ndax ñoo leen gën a comprendre di i jeu soyez honnête dem leen liggéey te ngeen bàyyi seen i ñàkk fayda di langaamu ci ay sayta noboo leen nit ki